ci réew moo xam ne te sens la pour ñun yàlla daf fi def mu am ñu baax ñu tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ñoo xam ne dañu jëf bàyyi fi wax nañu bàyyi fi bind nañu bàyyi fi kon amu fi dara lu des ci mën a tàmbaliwaat dara desul rek lu ñun jaam yi ñu joxante loxo aar ndono loolu nga xam ne mooy suñu njariñ fii ak ëllëg te bu ñu nangu benn doomu aadama ngay homme politique ngay président de la république ngay député ngay premier ministre bu ñu nangu kenn xajamal ko ndax bu dëkk bi waaw ndax xam nga ñun dañuy faral di wax naan jongante ci wàllu politique lu jaadu la moom la tubaab di wax nekk que c'est de bonne guerre ndax dañu war a seet ñi gën a xarañ ñu ñu dénk leen eh, réew mi ñu war di caytu suñuy kaaraange war a yor suñu koom war a doxal njàng mi war a doxal mbay mi et cetera kon ku jóg ne mën naa nañu bàyyi xel rek ci li Abdou Diouf waxoon rek ne jàkk jàngoog ku mën na nodd waaye nag léegi politique bi dafa xajam dafa nekk benn arène de combat boo xam ne non seulement xawinte sutura la waaye loolu dépassé nañ ko dañuy tëkkunte ndax dégg ngeen opposition bi ne élection du am te président sortant bi du fi campagne kooku tam ëllëgee mu tànne leen réseaux sociaux yëpp ñu ngi wane ay nervi tudde leen les marrons de feu di jóg di wane seen doole ne ñoom itam kenn du dem ñu des kenn nanguwul te tane sa moroom te magum lébu yu baax yi dañ daan wax naan boo ñëwee ci ak penc fekk ñëpp di xeex na am ñoo xam ne ñu ngi féetewoo àtte looloo tax nag yàlla dogal na ñun Jamra ren dugg ñu ci jongante bi ndax xam ngeen ne législative yi ñu ngi ci woon waaye présidentielle bi ni eh, dënn yi taree tàng moo tax dugg ñi ci dañu bëgg a féetewoo atte suñu atte nag fàtte lii rek la ndax fàtte xaju fii 1948 avant Sénégal di am indépendance ñaari parti politique rek a fi nekkoon muy SFIO section française de l'internationale ouvrière parce que boobu Sénégal colonie française la euh, ndem si yàlla si maître Lamine Gueye nekkoon euh, secrétaire général bi ca beneen wàll ba le bloc démocratique sén euh, sénégalais Léopold Sédar Senghor euh, grammairien doo a jóge France nekk secretaire général mais diggante ñaari parti yooyu lu ci amul ci ñaawteef rek foo ko natt weesu na ko waaye ba ñu amee indépendance lan la Senghor def dafa gestu ñor di Lamine Gueye bi nga xam ne moo doon noonam démb ci wàllu politique def ko président de l'Assemblée nationale ñu daal di réconcilier wu waaw léegi ana quarante morts yi amoon allée di santenaire ndax xeex BDS et ñii làggi ñii ñu luq seen bët ñii ñii ñii damm nañu perte nañu ñu dawal dawal ba euh, bi fi du Diouf nekkee les événements du 16 février 94 tout le monde s'en souvient année du centenaire la opposition bi ñoo doon def meeting kenn ci leader yi am baat bu mu yëkkati naan ah vous marché marcher parce que gars yi naan dañuy dem palais dañuy génne ab du Diouf mu ne vous marché marcher allez moo doon safaan wa rek dérapage am ñu songoo ak force de lord yi ay deret tuuru ay bakken rot ñu jàpp leaderu politique yépp tëj leen waaye ñooñu ba ñu génnee kaso lan la Abdou Diouf def dafa créer le GMPE le gouvernement de majorité présidentielle élargie jàpp Ablaye Wade le leader de l'opposition nommé ko ministre d'État jàpp yeneen yi jawriñam Idrissa Seck ministre Jean-Paul Diaz ministre ainsi de suite Aminata Tall ba pare tamit euh, les partis alliés du PDS ay euh, ko ab Ablaye Bathily yëpp ñu ñëw bokk ci partage du gato bi noonu démb yi daal di juboo léegi ana six policiers ya dee woon ci événement boobu ana suñu mbokk Moustachidine bi Mouhamadou Lamine Samb ba ñu rey rey bu ñaaw ba Amnesty naan que dañ ko torturer dans les locaux de la dikk perte nañu waaw ñu daal di ñëw ci 2012 bi ñu naan ab Ablaye amul droit am troisième mandat ñi naan am na ci droit ñi yëf yi tar lool avant campagne bi di ñëw comme période bii rek ku ne di tëkk sa moroom di woon sa sa morom doole songoo am deret tuur ay bakken rot waaye ba Macky Sall gañee dem ba toog qu'est-ce qui sa passe ña ko doon xeex di yabal population civile yi comme chair à ci mbedd yi ñuy joxe seen bakken transhumé nañu dem fekki le président Macky bokk ak moom boolu ceeb boolu añ ak attaaya jubo léegi ana 14 morts yi Amnesty International waxoon perte nañu donc exemple yi du jeex kon homme politique yi bu ñu leen jaral yéen population civile yi ngeen di dogoo ak seen mbokk bu ñu leen jaral ngeen di jubodiku ak seen dëkkandoo bu ñu leen di jaral ngeen di tongoo ak seeni am di jàmm ndax homme politique yépp ñoo bokk benn jikko à commencer par mois mii man mii mu di lan mooy ñoom bu ñu amee ku ñu mere bëgg nañ Sénégal yépp ànd ak ñoom mere kooku mais seen problème mooy bu ñuy rocceeku di juboo ji du ñu tàggoo loolu nañ ci bàyyi xel bu ñu leen sànnee ci mbedd mi ngeen dem di xeex ñii pat ñii damm ñii làggi ñii dee ñu rocceeku waat moom la ñuy wax la recomposition politique daal di leen fàtte ajjuma du jot sax ba ñu sànni leen benn fi daaw waaw boo leen ci xamee loolu ngeen seet li ngeen di def ku nekk am nga droit am sa carte électeur jour vote ba nga dem ca mbañ gàcc ba wooteel ku la neex te nga ñibbi yii ñuy wax naan ku wootee ba noppi na nga toog di surveiller looy surveiller yow defoo ma sa parti am na mandataire bu mu am foofu waa commission électorale nationale autonome am na ñu leen fa toogal comme observateur parti politique yi opposition comme majorité ku ne am nga mandataire bàyyil ñooñu ñu saytu waaye ngay toog ci bureau ba naan damay xaar mooy indi dérapage yi kon nag ñun ñu ngi lancer un appel à la raison pour que ñu xam ne la war a am au soir du 24 février 2019 suñu boroom ca maanuteem ak ca àlluwaam bu tedd ba bind na ko bu yàgg ka ñu war a naan wiiw ka ñu nar a fal suñu boroom bind na ko bu yàgg kon ñun jaami lii ñuy def nii jaa jaadu na dañuy sabablu rekk si jongante bi ku nekk am nga njort ne sa mbër mooy gañe waaye nag jongante boobu ak sabablu bi nañ ko sellal buñ ci boole lu ci bokkul jarul xawante sutura jarul tojal la def jàmm ci réew mi te yàlla nañu yàlla làqal Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah